fekkoon nag waa réew mi nañu bàyyi xel tuuti te may nit ñi jàmmoo tuuti waaw Yewwi Wi man ca laa bokk bokk tey te bokk ëllëg pur représenté Cheikh Tidiane Youm ma boole ko ak capitaine bi boole ko oustaz Cheikh bi boole ko njaboot yi ci des yépp ñuy liggéey seeni liggéey sunu mbokk ya nekk ci prison ba ñoom Massata Samb ak Mouhamadou Niang waaw baye boo ñu jàpp ni ñu ngi ci sunu biir manqué wuñu guddi gi waaw te li ci am solo mooy la wax ni la xewoon démb ba tax ñu dugg kaso bu amaatee it ñu def la ñu defoon nit ku gëm sa principe loolu ngay def te bu amaatee laa wax du nekk benn député ak ñaari député assemblée ba ci boppam la ñuy écraser du leen ko wax on verra ba tax na kon nag ku ñu may jàmm rek di nga am jàmm ku ñu mayul jàmm nag yaa xam waaw bu keroogee la xam ni ay lacrymogène ak yii ay fontu la waaw waaw waaw kii lacrymogène yi mu yor ku mu dal ci sa kaw daf lay déchiqueté waaw nga nekk ay morceau waaw xam naa nag am nañu ragal ñu ngi ñu ngi sëgg ni pat ndax defa ne àdduna day tukki jaru ko jaru ko ku yow bu ñeme rek waaw daa am na xam ne ku fa bokk booy boo nga ñeme yëf yi waaw siggi leen Moussa Gueye si siggil yàgg ñi ci des yëpp waaw waaw ragal baaxu waaw bu ko defee kon nag ni takku rek waaw ndax bébé sax takku nañu waaw bu ko defee kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp dafa mënul ñàkk comme nee nañ ñu ngi ma doon déglu lii laa wax waaw waaw ku mu neex nga commenter ku mu neex nga wax lu la neex on s'en fout waaw que fontu baax waaw bu ko defee rek noonu la demee waaw ñun dafa am lu ñu incarné waaw bu ñu toggee fii di wax anniversaire yi bi événement bi rekk la mais principe bi surtout ñoom ñi ko def ñoom soxna yu jigéen yi dévoué pour la cause lañu wax ñun nag ku ci dévouéwul pour la cause ah tu seras désavoué par la cause waaw bu ko defee kon nag loolu góor yu baax yépp nag lañ ko bokkal waaw bu ñu jógee rekk travailler ci façon biñ ci war a travailler waaw Sonko sonal nañ ko góor dëgg la jàmbar dëgg la je l'admire beaucoup ku mu gêné nag dina la gêné lu mas a xew nag Cheikh Tidiane yum bii la yónni ca moom ni ko boo demee nangam ak nangam nangam ak nangam parce lu ma ciy génn ci ay rajo ki télévision newu fi waaw la may def rek ma def ko foo ma koy féete ma féete ko waaw jël ay photom fa ma ko war dugal ma dugal ko fa mu war ma ni fa ma ko dugal yàlla fa nekk et puis c'est tout waaw defee kon nag ne ci ñëpp bàyyi xel te ñëpp toppatoo seen farata rek bañ a bokk ci ñuy soowandoo ci mbedd yi te topp sa cause rek lu ñu la wax la nga war a def nga def ko lu ma war a joxe comme instruction bu jotee dinaa ko woo moom mi capitaine woo ñii mu ko bokkal ci wàllu famille